الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بكو جليدي سوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيوني أمبكت ديدلو سي جسنو جتاي ويرو كور دي شرا أكل ليرال بنتب كور تتيري بي دي الملخص الفقهي بو الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان لأنك يا الله سبحانه وتعالى سامو توتكم suñu jataay bi weesu ñu ngi àggoon ci cheikh bi fii mu buntale tudde ko mbir yi nga xam ne ñoo yàqu koor muy yiy yàqu koor qaala xafidahu allahu taala wa mattaahu bilcaafiya baabun fi mufsidaati alsawm للصيام مفسدات يجب على المسلم أن يعرفها ليتجنبها ويحذر منها لأنها تفطر صائم وتفسد عليه صيامه هذه المفطرات منها الشيخ بي دال دي وخ يلنكو يلا سم نبنت بي داي وخ تي يي قكور موي مبير ييغا خمانتيني جوريت بي سوكو ديفي مكورام داي يق الشيخ بي موني للصيام مفسدات يجب على المسلم ان يعرفها نينا كور امنا بير يو خمانتيني موكو يق لي ورتي جوليت بي موي مخمكو غير مو مانكا مويتو بادو تابي ndaxte mbir yooyu da koy yàqal kooram kon li ko war moom mooy mu dal koy sori dal koy moytu ndaxte da koy dogloo day yàq li nga xam ne moom mooy kooram seex bi mu ne te mbir yi nga xamante ne ni moom mooy yàqu koor ba ca jiitu moom mooy aljimaa aljimaa fa mata jaamaca saaimu batala siyaamuhu wa lazimahu qadaau dalika alyawm alladi jaamaca fii wa yajibu calayhi maca qadaa'ihi alkafaara cheikh bu mu ne tomb bi njëkk bi ci tucc yi nga xam ne mooy yàqu koor mooy nit ki mu sëy ci bëccëgu weeru koor mu am rapport ak soxnaam ci bëccëgu weeru koor cheikh bi mu ne ki nga xam ne dafa woor heure bu sëyee ak kooram yàqu na te li ko war mooy mu fay bis boobu noonu nga xamante ne ni sëy na ca waaye dafa war ci moom ànd ak fay googu noonu mu def li nga xam ne moom mooy kafaara te kafaara mooy mbir moo xamante ne yàlla subhanahu wa taala war waral na ko ci moom ngir far bàkkaar boobu nga xamante ne nii bi na ci te mbooleem mbir yi nga xamante ne nii day yàqu koor bi ci gën a tar gën cee garaaw mooy lii nga xamante ne moom mooy sëy nit ki ànd ak soxnaam ci ko weeru koor woor ba pare dal di sëy moo gën a moo gën a tar ci mbir yi nga xamante mom moy yaq koor ndax dafa may mbir yo xamante ni mom la mom moom lay tegalo mo ca top bu fayé ba paré bis boobu nga xamante ne na ci dafa wara def li nga xam mom moy mooy wuté ku lek wala nga nan ku lek wala nga nan ci beccu wéru koor lila war rek mom moy fay waaye nit ki bu seyé ci beccu wéru koor nekul dafa wara fay kasse waaye dafa wara fay ba paré dal di def kafaara kon bobu mo ci gëna metti kon nit ki bu andé sëy ak soxnam ci bëccëgu wéru koor wul amul ngànt bo xamanteni moko téré wor muy tukki wala feebar bo xamanteni moko téré wor mu sëy ak soxnam ci bëccëgu wéru koor liko war moy mu fay ba pare dal di def li nga xamanteni mom moy kafar kon li di sëy muy am rapport ci bëccëgu wéru koor day yàq li nga xamanteni mom moy koor ba pare day waral li nga xamanteni mom moy mooy cheikh bu ne kafara mooy mu goreel jaam su amul lu mu goreele jaam amul tamit prix bi ñu goreele jaam li war mooy mu woor ñaari weer yu tegaloo te kafara li tax mu metti mooy mbir yi nii la tegaloo amul droit bàyyi premier bi di dem ci deuxième bi fekk ngant boo xamante ni sharia mooy wax ne li ngant la moom moo waral kon il faut nga am jaam goreel ko wala njëgu jam? nga génne ko wala nga woor ñaari weer yu tegaloo te ñaari weer yu tegaloo yooyu noonu day tegaloo amul woor tey dog suba mais day tegaloo amul woor semaine noppalu semaine ba ci topp day tegaloo amul droit dagg ko su fekkee mënoo woor ñaari weer yu tegaloo comme koo xamante ne nii am na ngànt comme ku feebar koo xamante ne nii feebar na feebar boo xamante ne nii dab na ko ba mënul woor ñaari weer yu tegaloo feebar na ba mënul woor ñaari weer wala koo xam ne magal na mën naa woor weeru koor gi wenn weer waaye ñaari weer yu tegaloo nga xam ne doo ca dagg dara mënu ko bu boobaa kooku noonu dañ naan ko mu leel juróom benn fukki miskin te mooy soixante soixante miskin ñoom lay leel miskin bu nekk nisfu saa te mooy kilo ak xaaj ca la fa mu dëkk la ëpp la ñuy dunde Bude dee ceeb mu ëpp li ñu dune ceeb la koy génne bu dugub mo ëpp li ñu dune dugub lañ koy génn dugub la koy génne ton dina génne kilo xaaj ci miskin bu nekk ci juróom benn fukki miskin muy 60 miskin kon ki nga xamantene ni sëy na tay ko and sey ak soxnaam ci bëccëg wéru koor war naa fay bis boobu noonu ba pare kafara te kafaara mooy goreel jaam soo amul goreel mu goreel jaam amul njëgg mu woor ñaari weer yu tegaloo su ko mënul mu leel juróom benn fukki miskin ba pare war na ko tamit mu tuub ndaxte dafa yàq li nga xamante ne ni mooy ak jaamu yàlla ci ak tayeef dafa yàq ak jaamu yàlla ci ak tayeef naam kon ku sëy sa soxna ci bëccëgu weeru koor te tey ko ñetti mbir moo la war ñetti mbir moo la war mooy nga tuub ci loolu nga xamante ne nii def nga ko te mooy xotti war maay weeru koor ak tedd ngaam ci bëccëgu weeru koor ànd seeg sa soxna ci bëccëgu weeru koor ñaareel ba mooy fay bis boobu nga xamante ni sëy nga ci sa weeru koor parce que day gàllu ci sa loos danga ko ñetteel bi mooy kafaara mbiri dafa war a tegaloo noonu tuub fay bés boobu noonu dal di kafaara te kafaara mooy goreel jaam wala génn njëgg wala woor ñaari weer yu tegaloo wala leel juróom benn fukki miskin nekkul da ngay tànn bu la ci neex rek def ko waaye nii la tegaloo danga nga war a njëkk a seet jaam soo amul jaam mënu ko goreel amul njëg kuy jeeral nga xamante ne mooy goreel jaam nga woor ñaari weer yu tegaloo soo ko mënul nga leel juróom benn fukki miskin tuub dellu ci borom bi subxanahu wa taala ndaxte da ngaa xotti war may weeru koor ci bëccëgu weeru koor. te buy leel bu ko neexee mu togg ay togg bu fekkee day leel juróom benn fukki miskin eh, juróom fukki benn fukki miskin muy soixante miskin. bu ko neexee mu togg ay togg comme ça mu toggal euh, fukki miskin toggal fukki miskin ba mat juróom-benn fukk ba soixante yi di mat bu ko defee noonu lu baax la bu fekkee tamit togg la goo xamante ne da koy togg ba mu pare boole kook la muy àndal ci soos ci la muy àndal bu fekkee ceeb la mu toggal ko la muy àndal moo xam yàpp la ci def wala jën la ci def wala lu mu ci mën togg ko defar ko ba mu baax woo ay miskin jox leen ko bu boobaa loolu moom mooy li nga xam ne moom mooy li ci ñaareel bi yi nga xamante ne moom mooy yàqu koor mooy koo xamante ne nii génn génne na li nga xam ne moom mooy man yu te tey ko moo xam jumtukaay bu mu ko defee wala façon bu mu ko defee ngir mu génn tey ko ko boobaa kooku kooram yàqu na moo xam dafa fóon wala dafa laal mo xam masturbation la def ngir génne maniyu wala mu xool dal di bamtu xool ga xool xool jigéen wala mu xool ay photo bamtu xool ga ba génne maniyu bu fekkee loolu maniyu ba génne na ci rek mooy ak waram yàqu na te li ko war moom mooy mu fay bis booba kese tuub tamit dellu ci yàlla subhaanahu wa taala waaye loolu amul kafaara kafaara ci ku sëy ci bëccëgu weeru koor kese kese loolu la jagoo naam kon ki nga xamante ne nii dafa génne mànniyu moo xam te tay moo xam yoon wu mu ko defee pour génne ko moo xam fóon wala dafa laal wala dafa mastic béew mu def dafa def masturbation wala mu xool dara daal di baamtu xool ka am lu génn ca moom boobaa kooku ak kooram yàqu na état li ko war mooy mu fay waaye du kafaara du def kafaara ndax kafaara mi ngi jawoo rek ci koo xamante ne ni séq na ak soxnaam sëy ak moom ci bëccëgu weeru koor li tettale ne nit ki su tayee daldi génn li nga xam ne moom mooy mànniyu ci bëccëgu weeru koor نكل كنت نكل شيئنا لولا نكون الميتات لنا كورم ياخنا ما يوخي الله سبحانه وتعالى حديث قدسي ينتبه صلى الله عليه وسلم يلا نينا يدع طعامه وشرابه من أجلي وفي رواية للبخاري يدع شهوته من أجلي موين نيت كي بووري يلا نينا كي وور موي باي لكم أغنانم غير من يلا سبحانه وتعالى ci beneen riwaaya ci beneen version bu imam bukhari génne ko mu ne mooy ki nga xam ne day bàyyi ay bànneexu bakkanam rek te yàlla subhanahu wa taala rek tax naam ci beneen version tamit mu ne yadau ladatahu min ajli day bàyyi ay plaisir am te yàlla rek tax moy mooy day bàyyi ay bànneexam te yàlla rek tax kon woor nekkul rek mooy bàyyi lekk ak naan waaye woor da ngay bàyyi lépp loo xamante ne nii bànneex la ci bëccëgu weeru koor kon kii nga xamante ne ni moo ko tey dal di génne mànniyu ci bëccëgu weeru koor kooku ak kooram yàqu na te xadis boobu noonu moom moo koy tettale muy xadis si boobu kon lépp loo xamante ne nii day dugg ci bànneex loolu dañ ko war a bàyyi ci bëccëgu weeru koor moo xam ay masturbation la walla fóon wala laal lenn loo xamante ne ni mooy waral bànneex wala di xool ay mbir yoo xamante ne nii day waral di yàq li nga xamante ne nii di baamtu di xool ay photo wala di xool jigéen koo xamante ne lewu la ci bëccëgu weeru koor nga xam mën nga caa amee bànneex mën nga caa amee plaisir loolu dafa xaraam ci bëccëgu weeru koor ak li nga xam ne moom mooy masturbation te mooy nit ki di def ay mbir wala muy fowee awraam ba wàcc li ba génn li nga xamante moom mooy mànn yu dafa xaraam ci bëccëgu weeru koor te lii di masturbation dafa xaraam moo xam ci bëccëgu weeru koor la walla ci lu nekkul weeru koor te moom la ñu woowee al aada sirriya mooy masturbation nit ki moo xam ci koor la koy def ak ci lu newul koor dafa xaraam kon génn maniyu moo xam sabab fu mu ko mën a defee pour mu génn ci moom moo xam foon ci foon la loolu jóge ku foon jabaram ci bu weeru koor man maniyu daal di génn ci moom ko boobaa ko kooram yàqu na wala laal na mu laal na soxnaam ci bu weeru koor man yu daal di génn ci moom kooram ci bis boobu noonu yàqu na wala mu def masturbation ci bëccëgu weeru koor boobaa kooku kooram yàqu na waaye li ko war rek moom mooy mu fay bis boobu noonu waaye nekkul kafaara amul kafaara waaye ki nga xam ne moom day nelaw daldi di gént mel ni day sëy ci nelaw yi daal di génn mànni te yëgu ko parce que àndul ak sagoom ba mànni bi di génne ca moom ndaxte kii di nelaw yàlla subhaanahu wa taala du ko bindal dara toppewu ko lenn ndax àndul ak sagoom ci buy nelaw moo tax kuy nelaw yàlla subhaanahu wa taala na la nga xam ne mooy bindukaay bi ci yow kon kii di nelaw bu géntee daal di génne mànni ko boobaa day sangu waaye kooram lu wér la yàquwul li ko war mooy sangu sangu janaaba sangu set bi mu ne wan naaimu ida xtalama fa anzal kii nga xamante ne day nelaw su géntee di nelaw mu yeewu fekk mànn ci ay yéreem kooku bu yeewoo dara waru ko kooram yàqul kooram lu wér la ndaxte loolu nekkul ci coobare boppam la amee ci ay nelaw la àndul ak sagoom ba loola di am ndaxte kii di nelaw yàlla yëkkatil na ko bindukaay bi nga xam ne moom la ñuy bindale yàlla subhaanahu wa du ko bindal dara ci loo xam ne mi ngi koy def ndax àndul ak sagoom ndaxte nit ki buy nelaw mën naa gis ci ay nelawam mu mel ni day sëy mel ni day dafa nekk ci rapport te boobu fekk ci gént la nekk ci ay nelaw waaye bu yeewoo fekk ay yéeram tooyul man niw génnul ci moom boobaa kooku sangu waru ko ak kooram moom yàqul waaye boobaa kooku sangu waru waaye bu yeewoo fekk ay yéereem mu tooy booba day àggale kooram lu wér la waaye dafa war a sangu ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na almaau min almaa yaani nit ki bu nelawee gis ndox ci tubéyam mu taq boobaa day waral ci moom mu sangu moo tax mu ne almaau yaani min almaa almaa maa bu njëkk bi mooy fekk gisee ndox muy ndoxum mànniwu taq ci tubéyam wala ci ay yéreem day waral li nga xam ne mooy ndoxu sangu dafa wara a sangu waaye nit ki bu genté yewu fekk tubayam toy wala yerem tax koram werna fekk bu fekk tubayam toy day sangu waye fekk yerem dara taxu ci toyul dara neeku ci bu boba sangu waru ko cheikh bi mu ne althalith الأكل أو الشرب متعمدا لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر cheikh من ne تيغا ci nga xam ne mooy mooy lekk ak naan ci bëccëgu weeru koor mooy lekk ak naan ci bëccëgu weeru koor kon nit ki bu lekkee di naan ci bëccëgu weeru koor te tey ko boobaa ak kooram yàqu na moo tax yàlla subhanahu wa taala ne wakulu washrabu xata yatabayana lakum alxayt al abyad min alxayt al aswad min alfajr wala yàlla subhanahu wa taala daal di digal jullit ñi ak wóorkat yi ñu lekk ak naan ci bu jant bi sowee ba fajar di fenk bu fajar fenkee haram na nit ki ki wor muy lek ak ci wéru koor min al fajar thumma atimmu siyama ila layl bu fajar gi fenkee na ngeen japp na ngeen mottali te li ndigal la lo xamantene lu war la na ngeen sori li nga xamantene mom moy lek ak nan ak lepp lu yaq koor ba jant bi di sox te dugg waaye ki nga xamante ne dafa lekk ki nga xamante ne dafa lekk wala mu naan daal koy fàtte bu boobaa kooku kooram weer na ndaxte bi mu lekk ak muy naan nekkul loo xamante ne nii daf kaa tey ndaxte koor buñ ko waxee mooy nit ki mu woor ci lekk ak naan ak sëy kon bu ko defee ci bëccëgu weeru koor mbir yooyu noonu mooy koor ga yàqu na ndaxte koor ñu koy waxee mooy bàyyeen bàyyeendi taxawandi ci lekk ak naan akuk sëy ñetti yooyu boo ko boo ci def ci bëccëgu weeru koor yàq na sa koor waaye ki nga xamante ne dafa lekk wala mu naan daal koy fàtte boobaa kooku loolu kooram lu wér la amul lenn lu muy jeexantal ci kooram kooram lu wér la moo xam koor googu farata la wala kooru gu war la cest mu nekk kooru nizer wala koor goo xamante ne ni kafaara la wala mu nekk koor goo xam ne naafila la kooru sunna la bu fàttee naan li ko war mooy mu continuer loolu amul benn jeexantal bu muy def ci kooram kooram lu wér la ndaxte yonente bi salallahu alayhi wasallam yi nga wax ci xadis bu wér ne nit ki day bu wooree mu daal di fàtte daal di lekk wala mu naan na àggale kooram yàlla subhanahu wa taala moo ko moo ko leel yàlla subhanahu wa taala moo ko nandal kon xam naa dañuy taxawani foofu ba ëllëg insha allahu taala ñu mottali bunt bi subhanaka allahuma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين